pasar pasare alalu réew mi moo ñu yóbbu tey fii ñu nekk nii te yàlla nañu yàlla dimbale ba li nga xam ne mooy mébét bu baax bi mu antu mm-hmm. mais une fois encore je rappelle aux Sénégalais que pour référentiel bi ñu mun ko jëmmal mm-hmm. il un combat crucial boo xam ne qui se profile à l'horizon boobu mooy l'élément déterminant bi war a mën a tax mébét yeeg projet yeeg yëpp antu muy élection législative yi gouvernement bi am majorité lii mu leen wax nii yëpp dana mën a commencer di ko doxal parce que sa ça ça nécessite des réformes en profondeur ça nécessite ay projet de loi yu war a yóbbu tout ça donc tout ça il faut il faut il faut il faut que sénégalais yi xam ne aujourd'hui l'enjeu majeur élection législative yi ñuy dëgmal la mm-hmm. élection législative yi ñuy dëgmal bu ko sénégalais xamee nag ñu jàpp ne mm-hmm. ñii am am majorité moo leen di dimbale mm-hmm. mébét bu rafet bi yëpp ñu def mu mën a ànd moo tax ma doon insister un peu ci les enjeux yi war a mën a tax référentiel bi mën a mën a mën a mën a ñu mën ko dérouler mm-hmm. te loolu sénégalais bu nekk war nga ko xam et merci euh, Dani Diatta qui dit que c'est c'est clair déjà hein les sénégalais ah les sénégalais ont compris ah alhamdulilah. bu ko sénégalais comprendre alhamdulilah mais daal man nee leen. Mhm. dirigeant bu am doole. peuple am moo ko jëmal. néeg bi nag li muy yaatu yëpp li muy leer yëpp jàpp leen na am na ay melentaan yu sew yu nekk ci biir néeg bi te mën nañoo yàqal nelaw xaw ma ndax xam ngeen fi may waxee. Mhm. dafa am melentaan yu sew yu nekk ci biir néeg bi di tambaambaalu mën nañoo yàqal suñuy nelaw foofu laay yem. aca ñu continuer. <laughs> waaw Samba du rey déjà on Euh, wax nañu ci li nga xam ne tamit jëm na ci référentiel bi ak euh, li nga xam ne moo di secteur yi mu laal sans qu'on parle de la santé de l'éducation lu jëm ci suñu ay euh, ressources naturelles itam wax nañ ci ak économie bi nga xam ne Sénégal war na ko développer parce que en termes d'économie ñun Sénégal duñu ay économiste mais xam nañ ni suñu économie dafa sooxe lool lool te loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni ñoom tenir nañ ko en compte ngir mën a fexe Sénégal économiquement parlant ñu mën a jug parce que aussi suñu économie bu bu doxee mooy suñu développement ñun tamit en tant que sénégalais parce que bu ñu amul eh, économie bu baax du ñu mën a développer aussi. xam nga sànq yaa ngi ko doon wax gis nga économie bi waxuma la non seulement gars yi teg teg nañ un programme très ambitieux. war a mën a doxal loolu mais lañ ko bëgg a fexe ba nga xam ne du yem biir Dakar rek mais day wasaaroo ci dëkk yi d'ailleurs loolu moo tax ñu créer li ñuy wax huit pôles régionaux pour un développement territorial plus équilibré et mieux planifié mmh. parmi ces pôles-là il y de Dakar pôle de Thiès pôle centre pôle région sud pôle sud-est Kédougou pôle nord-est pôle nord ak pôle Diourbel Louga c'est-à-dire que zone yooyu lañu ñu pour fexe ba nga xam ne dañuy def un développement territorial plus équilibré et plus franc euh, planifier xam nga ñi fi jóge benn pole économique lañu fi jël rek def ko fi hmm. muy jam ñaajo ça veut dire que ba tey yaa ngi biir Dakar impact bi ba tey biir dakaar lay yem ñii nag dañ ne dañuy dindi loolu dañ koy tasaare ci biir région yi def ko en huit pôles économique ma bantuwaat ko muy bu Thiès muy bu centre muy bu région du sud région Kédougou pôle nord est pôle nord ak Diourbel hmm. Louga ak su Diourbel Louga xam nga loolu boo ko defee ba développé ko ñu dëkkee wàllu ñu dëkkee Diourbel jàpp Louga bu affaire yi doxee dootuñ ñëwati Dakar. Mm-hmm. nga def ko Kédougou bu doxee waa Kédougou yi dootuñ ñëwati Dakar su ko defee dakaar ñu dëkkoon sax Kédougou nekk fii dakaar dañuy bàyyi dakaar dem ñibbi seen dëkk. parce que Dakar tamit dafa metti waaw ñi fi indi suma genre gi yëpp ñëw fi koom rek moo leen fi indi. ak sama genre gi. ñoom waa bu buñ ko amee fañ dëkk <laughs> mais dañuy ñibbi. te loolu mooy le meilleur moyen pour régler cette question d'exode rural la mm-hmm. gis nga ko mooy beneen bi mooy wax nañ ci euh, trois grandes mesures pour une éducation de qualité. de qualité l'amélioration de la gouvernance de la qualité du financement du système éducatif et de la formation. Mmh. l'intégration effective des langues nationales et des daara dans le système éducatif. gis nga oh damay taxaw ci ponk boobu. Mm-hmm. ñun bu il faut ñu utiliser suñu langue national gis nga langue national bu ñu ko doon utiliser mm. romb nañ fi yëpp réew yi développé yëpp gisoo leen ñuy wax ci làkk jàmbur déedéet boo ma wonee réew bu développé buy utiliser làkk jàmbur rek boo comptee bariwut Chine boo fa demee lu ñuy làkk France boo fa demee lu ñuy làkk boo demee États-Unis lu ñuy làkk jeex na réew boo buggee développé dafa am yoo xam ne boo ci sukkandikoo rek mën na laa régler problème bari muy suñu làng suñu kàllaama lan moo tax léegi boo xoolee léegi sénégalais yi di gën a comprendre yenn question yi parce que depuis un certain temps dans les médias làkk tubaab dafa bëreetu moo tax sénégalais yi léegi ci yu bëri léegi dañoo comprendre parce que bu njëkk ba boo xoolee dans les médias tubaab lañ gënoon favoriser. Hmm. tubaab lañ gënoon favoriser. même journal olof bi mu commencer am sax yàggul mais journal français lañ doon def mais léegi demal nga comparer émission nga xool émission tubaab di daw émission wolof di daw nga xool en terme de téléspectateur émission olof bi toujours mooy ëpp parce que sénégalais yi foofu lañ gis seen bopp. pour mën a comprendre pour mën a comprendre moo tax euh, l'intégration effective des langues nationales et des daara xoolal daara yi mhm. ñun daara dafa war a bokk ci suñu système éducatif xoolal léegi doomu daara yi xoolal ingéniosité bi nekk ci ñoom mhm. mais dañ leen beddi parce que jàngu jaarul ci jànguñu tubaab te da xool ku mel ni Cheikh Thioro Mbacke doomu doomu daara. Mm-hmm. kooku boo ko toogee muy déglu nga wax amul question boo xam ne rek am na ci problème mais fii joxuñ ko woon gëdd bi parce que dañ doon jàpp ne doomu daara la te ça a été toujours comme sa au Sénégal. Mm-hmm. Sénégal boo jàngul moom boo jàngul ñoom bañ nañ ko ba sax dañ naan kii analphabète la wala kii jàngul donte doomu daara nga mais ñoom duñu jàpp ne yow daara bi nga nekk ñoom duñ ko sax considéré. comme ku jàng dañ naan kii kii noo kii jàngul je peux être d'accord nga ne jàngul nasaraan waaye jàngul te mu nekk doomu daara te yooyu yëpp daf ñu plombé yooyu yëpp daf ñu daf ñu tardeel ci lu bari daf ñu tardeel ci lu bari. muy ay mesures yu am solo. tax éducation quand même. waaw dafa bokk ci développement léegi ñu ne éducation des enfants et des jeunes en situation de handicapé une priorité nationale. xam nga lii xale yi nga xam ne dañoo laago. wallaay war a mën a jànge. ñun Sénégal dañoo jàpp ne boo laagoo rek. lenn moo baax ci yow mooy dem yalwaan nga gis ay xale yu tuuti yoo xam ne war nañ mën a dem jàngi. ñu jël leen di leen yóbbu ñuy yalwaan yi. Mhm. xale yooyu ci yalwaan boobu lañuy juddu ci la ñuy màgg ci la ñuy cest à que benn chance moo leen desi ci àdduna. mooy yalwaan boobu. kese loolu rek lañ leen offrir comme opportunité. Mhm. amul leneen Sénégal fii boo yalwaanee boo handicapé dañuy jàpp ne yow baaxuloo ci leneen lu dul yalwaan alors que da nga war a demal ci jumaa yi nga xool vendredi